Ibrahim Lam Fall Babul Mouridine mbokk julliti mbokk taal bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare jiital ci numéro bi ak ziar bi Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké ñaana ko fan bu gudd ba ànd ak wér waaye tamit ñaana ko xalif général des Baye Fall ziar sama Serigne sama wasila Serigne Saliou Fall mu Cheikh Ibrahima Fall Ndiane ñaana fan bu gudd ba ànd ak wér waaye tamit may ziar sama mbokk Tidiane yi xaadir yi laay ni ñeseen yi waa ceena ba maa ngi leen di nuyu di leen ziar amaan mbégte ak contentement teewaat fii ci VFtv la chaîne des valeurs dédiée aux femmes seen émission bii di émission cant gi muy amee fii ci BFTV chaque vendredi chaque fois nag duma ci wet ndax dinaa ci ànd ak benn Baye Fall ba tax na tey maa ngi toog ki nga xam maa ngi toog ak ki nga xamante ne nii mooy sëñ Abdou seen Baye Fall macha allah di mag ci ñun di xarit ci ñun bu ko defee rek dama koy daal di jébbal kàddu gi daal di koy bàyyi mu nuyoo. baax a baax ki nga xamante ne nii moo di sëñ Fallou sama cameraman bu kenn moom ci mim réew waaye tamit di nuyu ki nga xamante ni day sama tonton di sama xarit tonton Cheikh moom nga xamante ni moo nekk ci technique bi di nuyu suñu PDG tataaxaar di ko ñaanal moom tamit fan bu gudd bu ànd ak wér ndeysaan moom day jigéen ci mën góor ay moom maa ngi bu baax a baax te di ko ñaanal sa borom yàggal ko wëral ko kon bu ko defee rek euh, mbokk yi dañuy daal di euh, dem ci li nga xamante ne nii moo di liggéey bi ànd ak suñu xarit suñu mag Baye Fall kon bu ko defee Fall dama lay daal di bàyyi nga de nga daal di démarrer ay ca bisimilah. yow yaay Fallu laay Sëñ Fallu duñ la duutal way la yaa ko moomee. Fallu laay yow yaay Fallu laay Sëñ Fallu duñ la duutal way yaa ko moomee Fallu laay. laay walaay. Fallu duñ la duutal way la yaa ko moomee Fallu laay. توحيدا وإياك مؤمنا بالله Mama. Lord. macha allah moom balay sa buri Serigne Mbacke Maram daa neex a tagg loolu sëñ Fallou kooku mooy borom na am mu am borom du am du am ah kooku mooy bàyyi bay Karim bàyyi bay atteex waaye bàyyi soxna daw sëñ Fallou ma ciy profité waale rek di ko may bu baax a baax sama caméraman bi comme ni ma koy waxee sëñ Fallou ki nga xamante ne ni moom dañ ko koo dippee macha allah kenn di yow ci mim réew waaye tamit ma ciy profité di ko may sama maman sama xarit maman nday assum waaye nee naa la te li nga jébbal sëñ Fallou doo ko rëcc kooku ku ko jébbal loo ko jébbal dina la ko téyal Fallou Issa Boury Serigne Mbacke Maram Aïcha kon ñoo ko déggandoo macha allah Abdou Sène sëñ Fallou nga ñëwee nga nga ubbee. waaw dafa fekk kenn ku ne am na sëñ waaye ku jàpp sëñ Fallou. wallaahi ndeysaan macha allah. tànk lañ ba léegi waaye dañoo ànd ak moom diir bu yàgg fépp mm-hmm. ku Cheikh Rafal woote rek ñu ànd faal mu yàgg kon nag mënul ñàkk ñu woy sëñ Fall macha allah maa ngi koy may njaboot sëñ Fall di nekk jaareen ku mm-hmm. mel ni soxna Daba sëriñ Ateef mm-hmm. waaye soppee sëñ Fall yi ku ci mel ni Alaaji Fallu Lam laa kon ñoo ko déggandoo ay ci ay Abdou Sène moo leen may sëñ Fallou boobu kon bu ko defee rek gannaaw dañoo jógee ci sëñ Fallou sëñ Abdou Sène fan lañ jëm waaw bu ko defee kon dañuy woy jigéen bu baax kanam la denculoo dërëm di dëxëñ soxna Karima yow ca kanam borom ni di yow ci jaani li dë joojoo dërëm di dëxëñ soxna Karima yow ca kanam borom ni di yow

Yeah. Fall RFM di ci ziar sama sëriñ sama xarit sëñ Maodo Fall bu sëriñ Cheikh Bintu Fall di sama xarit loolu ma koy ziar bu baax a baax waaye tamit di ko jox wàccuwaayam di ziar bu baax a baax waajuram bu góor woowee Cheikh Bintu Fall doon suñu sëriñ doon suñu papa doon suñu xarit euh, te bëgguñu lool macha allah euh, waaye tamit euh, sëñ Abdou gannaaw ba ñu passé ki nga xamante nii rek mooy soxna Karima bu ko defee rek Fall dañ lay daal di bàyyi nga daal di xuus daal ñoo ñëwal ci sëñ Saliou Mbacke nag ndax ndeysaan kooku day ndaw ñi xamante ne ni balay sa buri ñu ñu mee rek moom la jëmam ju seetlu jooju la borom xel comme sangu sëñ Béthio Thioune bi macha allah kenn du moom balay sa buri sëriñ Mbacke Maare way naa la sëriñ Saliou way naa la way naa la sëriñ Saliou way naa la borom jannatul mahwa jàmbar nga way naa la sëriñ Saliou way naa la way naa la sëriñ Saliou way naa la borom jannatul Hallelujah. Amen. Solomon إله إلا الله فال ربنا لا إله إلا الله Yàlla maam jaay amoon daar daar Seydou Laye Moubaal Cheikh Ibra Fall lam maam Cheikh Ibrahima Fall lam Moubaal Baabul Muridina may sa bigi kumbal Fall ñu boole bare xati ma net keroog jam dem na may maam say jaay Cheikh Ibra Fall lam Fall Cheikh Ibra Fall am jaara Fall Oh,

Thank you. waaye gën a wëral baat bi ba li nga nam ci liggéeyoo rek saa borom jàppandil ko waaye gannaaw ma lay bàyyi ngay demaat fenn rek dama lay daal di xëcc sama bopp daal lay bàyyi nga daal di may taggal sama sëriñ ba sama wasila sëriñ Saali Faal mu Cheikh Ibrahima Fall Ndiaye kulu naa lin wa dan il xulaasa zaman xayru asa zaman sëriñ Saaliwu Faal jul karam billahi la ñuy wax wallahi lan jay teeg billahi sëriñ Saaliwu Faal sëriñ Saliou la kañ naa la ji naa la sëriñ got Bye. Oh, my God.

Fall di soxna Jaara Sall madame Fall di ko ñaanal saa borom bi mu yàggal ko lool euh, ci ëtt boobu di ëttu Falleen waaye tamit muy nuyu bu baax a baax sama yaay yaawa siise di waajur ci Serigne Saliou Fall sama yaay sama xarit maman bu sa sekk mu Serigne Fallu ki nga xamante ne nii dama koy ñaanal fan bu ak wér ba sama yéene ci jëmmam gi saa borom def mu jàppandi waaye tamit may nuyu bu baax a baax waa daayira Bamba yàlla sama daayira jël nuyoo bi ak jaar bi teg ko ci loxoy jëwriñ di Serigne Saliou Touré euh, kon Sociedade Baiana booy liggéey rek réalité nga ma fa loolu nag ma booleeg suñu borom la kon yal na kóllëre gi yàgg ñu ñaanal waa télévision bi DSTV sama borom yëkkati leen ba ñu sut ci télé yi Sénégal yëpp ma koy jaajëfal bu baax a baax moom sëñ Abdou Sène Baye Fall doon ki nga xamante ne ni moom laa doon àndal ci sama émission bi de émission cant gi ma koy jaajëfal bu baax a baax comme ni nga ko waxee muy sama mag bi sama xarit macha allah woyof lool ba ku ko jëlee rek mu fekk si ma fa ba koy ñaanal saa borom bi mu gën ko yàggal gën ko wëral te wëral baat bi ba lu mën a mu ci liggéey bu maam Cheikh Ibrahima Fall bi saa borom ko waaye tamit may jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne nii nee naa la mënumaa dem bàyyi ko muy sëñ faalu sama caméraman bi waaye tonton Cheikh sama technicien bi kenn du moom ci mim réew di nuyu bu baax a baax di jaaj jaajëfal ki nga xamante ne nii moo ma daal di génnee ci maquillage bi euh, Ndeye Khady Touré euh, salon de coiffure sopp sëñ Fallou seen Ndeye Khady Touré madame Kassé ki nga xamante ne nee naa la képp ku bëgg may këpp bu baax rek da ngay daal di doxantu ba ci moom Martin Dumbe Diop fee ca ruq ginaar ay ceew nee naa la pour nga dem ci Ndeye Khady Touré noonu ngay daal di jaar da ngay dem ba Martin Dumbe Diop ruq ginaar foofu la salon de coiffure sopp Serigne Fallou Mbacké nekk wara nga woote ci numéro yii di 77 166 37 21 wala nga woo ko ci 76 471 09 75 Ndeye Khady Touré waaye tamit nee naa la kenn du sama xarit sama mag Baye Abdoulaye Diop xasaayit fee ca marché ku ndaw ki nga xamante ne nii ci laxasaay bu ma sol rek man soxna Maare moom moo fa jaar te di ko def te Serigne Saliou Mbacke rek tax ma koy jaajëfal bu baax a baax kenn borom Touba culture c'est Baye Ablaye Diop numéro bi 78 182 03 85 182 03 85 may jaajëfal képp koo xamante ne nii rek yaa ngi doon bàyyi xel télé bii di VFtv waaye doon bàyyi xel émission bii di émission ëttu émission bii jum juum bi joxaat leen dig daje incha allah aljuma fii ci VF euh, TV may jaajëfal ñëpp di jaajëfal képp koo xamante ni rek yaa ngi doon teewlu émission bi di cant gi waaye jaaj jaajëfal ki nga xamante ne nii mooy suñu PDG te tànday xaar doon jigéen ju mën góor nga xamante ne ni nee naa la yow jàmm rek lan lay ñaanal te ñaanal télé bi de VF TV fépp foo xamante ne ni rek ñu ngi fay dégg ay télé ñu dégg ko fa parce que Serigne Touba Serigne Saliou Mbacke jërë ngeen jëf Thank